lan mooy li nga xam ne ni moom moo nekk saa si tembe lu daar daar lu ñu war a def ngir au moins sauver sax suñu benn ci bi nga xam ne ni moom mooy pouvoir yi ñu am ndaxte réew euh, bu mel ni Sénégal ñetti pouvoir yi fi nekk. benn bi moom liñ ko décrier ñaaw na sax laa lay wax ci atum 2023 wala 2020 jàpp 2023 mooy bu judiciaire. lan la ñu war a mën a def ngir au moins. delloowaat delloowaat ko son lustre d'antan comme ni ko mën a waxee mais boo ko waxee noonu day mel ne yeneen pouvoir yi day dox loolu ko tel ah, n'est pas le cas doxul de assemblée nationale amul benn pouvoir. ah mais ban pouvoir la wax nañ fi 45 milliards yoo xamante ni ministère de l'environnement moo ko dem jënd pa euh, euh, moo ko dem jënd. Uh-huh. comprendre uh-huh. est-ce que loolu wax nañ ne assemblée nationale député yi bloqué nañu ko est-ce que wax nañu leen ne créé nañ commission d'enquête parlementaire pour xool na mu fa demee contrôle contrôle de l'action du gouvernement amul. Hmm. budget bi nga xamante ne moom la ñu voté. en deux mille euh, deux non waxuma année bii ah, sax. mais bële mais mhm. bële. bële. Mhm. amul maanaam xam nga yow di nga nekk foyer. Mhm. collège. wala foyer lycée. école tëj nga def bilan. mais ñoom dañuy nekk état boo xamante ni année day jeex. seen yoon nekkul ci bilan. dëgg la mille quatre cent milliards yi ñu waxoon ne moom la ñu voté woon en deux mille vingt deux. amul benn vérification bu ci am. amul benn vérification benn vérification benn maintenant par rapport à, à, à la justice. à la justice waay. xam nga magistra yi. Mhm. ñoom ñoo def seen séminaire. Mhm. dans le cadre de l'UMS. Mhm. ñu ne dañoo bëgg plus d'indépendance. maanaam mooy indépendance bi ñu soxla pour def seen liggéey amu fa. ensuite le juge dem mu démissionné mu ne démissionné naa d'une magistrature qui a démissionné. démissionné. xam nga loolu samay kàddu. moom ay kàddu ay magistrats ñoo ko wax. Mhm. donc euh, euh, manque d' indépendance boobu nga xamante ne nii nekk na ci magistrature bi. Mhm. te ma jàpp ne li ci gën a bëri. Mhm. li ci gën a bëri nekkul système bi wala texte yi ñoom ñoo leen di tënk li ci gën a bëri yenn magistrats yi ñooy tënk seen bopp. ñu ñuy tënkee seen bopp. par carri pour carrière parce que la preuve juge Sabassy décision bu mu jël. mais xamoon naa ne du neex pouvoir bi. waaw bu nekkoon ne moom carriériste la boo xamante ni dafa bëgg suba wala gannaaw suba ñu nommé ko euh, comment dire cour suprême. Mm, wala ñu nommé euh, voilà wala yeneen i privilège wala comme ni ko Macky Sall waxee woon en 2012 que Abdoulaye Wade dafa jox ay terrain ak xaalis magistrat yi. comprendre mm. bu nekkee ne ñoom loolu loolu nga bëgg bu nekkoon ne moom loolu moo ko intéressé. Mm. xëy na du jox Ousmane ko dëgg. Mm-hmm. comprendre danaan naa def li état bi bëgg suba dinaa am ay poste suba dinaa am ay terrain ay almadeek fu ne dinaa am tamit ay millions yu ma permettre ma tabax ko ay étage mm-hmm. tout simplement mm-hmm. donc pour dire que système bi gaa bokk am na ci loo xamante ne nii tënk na yenn magistrats yi mais li ci gën a am solo mooy c'est un problème d'individu problème d'individu d'individu am ñoo xamante ne nii ñoom ñoo taxaw ne ak seen euh, comment du ñu juger seen aqulaayu taala dañuy xool lu neex diw ak lu neex diw puisque tey muy Ousmane yaakaaroon naa ne sax état bi dinañ ne comme que Ousmane la tudd jugement bi baaxul comme nañu def saa ba si à Kaolack à à à Ziguinchor. ne mm. xaw ma rakku xaw ma ban ah. kii la. comme si quelque part yow nga bokk ak diw mën na influencer yow décision bi nga war a jël. Mm-hmm. mais ma dans tous les cas boo gisee ñaari magistrat yooyu jël li nga ay décision yoo xamante ni ñëpp xam nañ ne arrangé wul état bi ça veut dire que ne ñeneen ñëpp mën nañ ko jël keneen koo xamante ne nii jëluloo ko c'est parce que quelque part ñee li nga xamante ne nii euh, moom la ñuy bañ. wala loo xamante ni jaralu leen ko ñoom daleen koo jaral gis nañ fi ay magistrats yoo xamante ni condamné nañ fi ay homme politique ñu yóbbu leen ci ay post yoo xamante ne nii mooy loolu. Mm-hmm. ku mel ni le juge Demba Kandji mooy loolu. Khalifa sàll moom daanaka moom moo ko moom moo ko liquidé. Mm-hmm. fan ba mu fa jógee fu mu dem. Mm-hmm. médiature de la république. Antoine Diome mi nekkoon euh, agent judiciaire de l' gis nga ba mu bañ ca pare ci pare procès yooyu euh, neexal gi ñu ko jox. def ko ministre donc yooyu yëpp am na magistrats yoo xam ne dañ ciy bàyyi seen xel de sorte que li ñu war a jugé muy dëgg duñ ko def. duñ ko def alors maam Birame foofu noonu am nga sànq la wax lu am solo loo xam dama la ci delluwaat ginnaaw xëy na détail la boo boo wax nii mais mën naa am sax prêter woo ci attention. Mm-hmm. mooy ci ci ci bi ñuy àtte ca ca Ziguinchor. Mm-hmm. ñu ngi ñuy wax nañu kenn ci euh, juge yi ou bien kenn ci avocat yi en tout cas ci ñi ñi waroon a yor yoon bi ci biir. Mm-hmm. ñuy wax ne laale na ak Ousmane Sonko waaw euh, xaw ma ñaata adjoint au maire la ci euh, ci kii bi bon laaleeg Sabasy Faye tam mbir mi te alors que fii nii ñu toll. gis nañu ne njiital réew ci boppam am na benn tabaski sax suma juumun la e, ca ca fi nga xam mooy grande mosquée doon def discours coow la suñu 400000 yi temps yi coow la jógee muy wax naan en quoi frère gi sama frère li kii nekk sama frère bu compétent war naa mën a nekk fii wala war a mën a nekk fii en d'autres termes e, mooy sànq ma ñëwaat ci incohérence yi e, foofu le fait ñu yëkkati coow loolu noonu ci juge jugement boobu noonu mm-hmm. est-ce que pertinent na ci moment yu décisif yooyu. bu président sax neex na mais am na bu ko gën a neex. ban moo gën a sax xorom. bu euh, ministre de la justice bu Ismaïla Madior Fall remplacé Malick Sall. mu ne Aliou Sall màkk la jógee liñ koy jiiñ defu ko. waaw bii moom <laughs> la jóge li muy def. xam nga. Eh, eh, xam nga dara dëgg du ci dëgg ndax màkk la jógee xam xam nga de bu ñu demee ba nga xamante nii eh, mais mais da ngay laajte mais kii naka la ñu mën a def ba nommer ko quand même à un poste aussi sensible que ministère de la justice. Mm-hmm. comprendre ku mën a toog di am réflexion yu mel noonu. Mm-hmm. donc pour dire tout simplement que xam nga Sénégal. Mm-hmm. constitution bi. dafa jël ñëpp teg leen au même pied d'égalité constitution bi mën na am yu bëri lu ñu ci wax notamment le fait que ñëpp ci sénégalais yi xamuñu lan lay wax mmh, waaw c'est un problème c'est un problème mais bu ñu jëlee li nga xamante ni moom la ñu am nii euh, li nga xamante ni mooy lu wér te ñu bind ko mu leer nañ mooy les citoyens sont censés être égaux devant la loi mmh. maanaam ñun ñëpp dañu naan fa mbaxal na doonee benn mmh. mais Sénégal tu te demandes ndax est que mbaxane mi benn la. mbaxane kay est-ce que doy dix mbaxane. très bien. ku nekk ak bi ngay sol. Euh, ma ngoog puisque Aliou Sall bi ñu koy wax waxu quatre cent mille yi. Hmm? Hmm. lan la ñu def pour euh, fay coow li ñu ne ubbi nañ ab dossier au niveau euh, du juge Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm. ñu ne képp ku am information bu jëm ci. pétrole bi ak gaz bi may nañ la nga indi ay dossier pour étayer ko. loolu la ñu waxoon. au lieu que ñu dem def ay enquêtes sérieuses. Mhm. comme yi ñu def ci yeneen dossiers. Mhm. mais ñu ne appel à témoin la ñuy def. comme mel ni Clédor gàddu ab euh, cartable la indi leen document yu bari. ñu ne ko non non yow woowaguñ la demal nga toog. <laughs> da ngay xaar <laughs> xaar donc mu leer la ne <laughs> justice boobu moom moo mën. très rapidement. Mhm. Euh, comment dire fadilu euh, Fadilou Keita. waaw ah. bu Pastef. Mhm. bind ne j'espère ki mhm. n'ont pas tué mon frère. ñu jàpp yaakaar naa. Ah. ñu jàpp tëj ci kaso bi. dépassé na un an ñu ne Aliou Sall naan na pétrole bi seulement gaz bi sénégalais bu nekk yoreel na la quatre cent mille francs mais jusqu'à présent amul benn enquête boo xamante ni dem na sax bay leeral loolu. alors que lu ñu gis mooy. Mm-hmm. le président Macky Sall. Mm-hmm. dafa ñëw en 2012. Mm-hmm. février la ñu def premier tour. mars ñu def deuxième tour. deuxième tour avril moom mu prêter serment. mais mu ressuscité CREI. mais juin mu jox Petro-Tim pétrole bi. maanaam nii la ko teglante toogul xaar ne xaaral ma jàngat dossier yi ma fi fekk toogul xaar mu ne xaaral ma def état de lieux comme nu ko nit euh, comment dire gouvernant bu bu doog a yegg si war a defee. Mhm. yow mi ñu la nommé woon directeur général quelque part balaa ngaa def quoi que ce soit di nga ne xaaral kat ma xool li fi ne. waaw def état des lieux. état des mais sax ña fi nekkoon. ma mais le président Macky Sall juin 2012. la joxe pétrole bi. ñëw rek doxal ci pétrole ma ngoog loolu di wane ne eh, quelque part Aliou Sall mbaboor bi toppoon na ko hmm. mais le principal responsable mooy le président Macky Sall hmm. muy wane également aussi que li ñu bind ci constitution bi ci article 3 dal di ne tous les citoyens sont égaux devant la loi hmm. loolu au Sénégal kenn appliqué wu ko les citoyens ne sont pas égo devant la loi ñenn ñi dañuy wax lu leen neex dara du leen ci fekk alors que ñeneen ñi luñ munti wax dara mën na leen. ci ñoom dañuy fëgg seen dënn di bàkku ne réew mi réewu démocratie la état de droit tamit la. non loolu moom. kon gëmoo loolu non loolu kay non non ñoom ñuy wax loolu sax gëmuñu ko loolu moom kenn tu ko. Sénégal état de droit la. ah non loolu kenn discuteetu ko. soo waxee ñoo la yaa ngi nii di toog sa plateau di wax te kenn fekk si. Oh, non man nañ ma fi fekk si de toutes les façons man moom ñu bàyyi ma ñu jàpp ma mënul tax ñu <laughs> man du ma baromètre état de droit. Eh, <laughs> de toutes les façons maag Pape Matar agressé nañ ñu fi bëjëg ndar kàmb février la woon déposé nañu plainte commissariat point e, ñu tey ñu foofu pendant ay heures di naan dañuy auditionné. agressé. mais bëccëg ndarkaam loolu Sénégal tout le monde ana a parlé bëccëg ndarkaam foo xamante ne nii carrefour la boo boo xam ne policiers yi ñu ngi gaale à quelque centaines de mètres ñu agressé ñu bëccëg ndarkaam ñu dem déposer ci plainte policiers yi auditionné ñu ñu wax leen ne oto bi matricule bi c'est ça et ça et ça auto administration ñu ne non seulement oto ba amatuñ ci nouvelle mais suñu plainte bi daanaka boobu lañ ci gëj a xam dara. donc un tel état. nga xamante ne ni euh, euh, comment ku mel ni Suzanne Camara mën na taxaw ci rajo wala télé dal di ne militaire bi ak militaire bi dañoo faatu man xam naa naka lañ leen reyee te jusqu'à présent kenn convoqué wu ko mu ngi continuer di wax ay conneries ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne nii su ma leen fi doon lim xëy na temps dina jeex te te du mat alors que en même temps on te dit plus de mille sénégalais ñu ngi dans les prisons ñenn ñi parce que dañoo faral Ousmane Sonko ñenn ñi dañu leen a jàpp te kenn xamul lu tax ñu jàpp leen ñi leen jàpp sax xamuñu lan leen leen di toppee. da ngay gis euh, quelque part un ay une dizaine de personnes ñëw taxaw devant le juge après des mois et des mois de prison ñu ne leen relax purement et simplement dëkk bu loolu am fan nga mën a waxee état de droit. non état de droit kay. mais bu réew bi demee ba tollu foofu. ñuy jub ay élection est-ce qu'on euh, donné ñu ngi doon sàkku ci ñu jox